gan gi soxna Diégui Diop Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ma sœur de cœur merci beaucoup. am mbégte lool dalal la ci matinalu mi FM tey alors ni ma la présenté ñu tàmbalee noonee yow yaa jiite bureau euh, communication programme national de lutte contre le paludisme ñu ngi ci nawet euh, fan ngeen toll ci wàccaa yi ñeel xeexum sibiru gi. jërëjëf ma sœur donc ñu ngi ci wàccaayu paludisme d'ailleurs euh, programme national de lutte contre le paludisme musul taxaw ñoom douze mois sur douze ñu ngi liggéey mm. ay techniciens ay professionnels de santé ak ñoo xamante ne c'est des techniciens juste ñu ngi ci terrain bi chaque jour des des fonctionnaires ñoo xamante ñu ngi au fin fond Sénégal di dem di seet ñi di leen nemmeeku mais li ñu gën a taxawal mooy la prévention balaa sax nawet bi di agsi dañuy dem xool zone yi mais il deux zones yoo xamante ne dañ ciy liggéey c'est la zone sud et la zone nord zone sud bi nga xamante ne trois cas yi la muy Kaffrine Koungheul Kolda ñoo ak Tambacounda dañuy dem foofu di leen xool parce que c'est il se trouve sur la zone rouge ak au niveau de la zone nord nga xamante ni Kanel Kanel la Ranérou Linguère et Matam hmm. donc ñu ngi ci instant bi ce qu'on appelle les AID AID mooy pompe yi nga xam ne dañ koy def ci biir kër yi fi nga xamante ni xool nañu ba xam ni yooyu mën nañu nen foofu ñu dem pomper leen seen biir kër yi jël toutes les précautions et douanes ñu ngi ci aussi beneen politique boo xamante ni lutte anti antivectorielle la ñu ngi dem ci biir kër yi xool ñi nga xamante ni xalaat nañ ni ñii war nañ leen jox comprimé de zéro à cinq ans muy xale yi jox leen ko donc ak li nga xamante ni mooy joxe moustiquaire imprégné yi muy milda lépp loo xamante ni rek ñoŋal na pour que benn sénégalais du mën a am paludisme ñu ngi ci il faut préciser nag Sénégal mi ngi ci période boo xamante ne presque à l'élimina pré élimination du paludisme. Mm, waaye ba tey yooyaa ngi fu mel ni Ndakaaru gox yooya euh, fan ngeen ciy natt si bureau bi ak euh, lan ngeen fa fas yéene def ndax li nga fi lim zone nord bi la concerné ak yenn gox goxaat Sénégal oriental. il faut préciser que Dakar na fait pas partie de la zone rouge. et puis hmm. il faut ñu leeral que lépp loo xamante ne gis nga ko muy yoo rek du yoo bi nga xamante ne moom moo tudd anophèle di joxe paludisme. Hmm. du yoo yëpp ñooy joxe paludisme yoo bi nga xamante ne mooy joxe paludisme moo tudd anophèle te anophèle du yoo boo gis rek nekk na anophèle d'abord ensuite il faut préciser que Dakar ne sa trouve pas au niveau de la zone rouge mooy ñi nga xamante ne paludisme daf leen di rey ci lu ëpp Dakar bokk si. il faut admettre que yooyu bëri na ndax canal yi yi nga xam ne c'est des canaux waaye. programme national de lutte da ciy liggéey ànd ak waa service d'hygiène ànd ak waa ONAS ànd ak lépp loo xamante ni service la boo bu taxaw pour sénégalais yi bañ a yëg matt matt yooyu pour sénégalais yi bañ a yëg paludisme waaye Dakar ne se trouve pas au niveau de la zone rouge alhamdulilah. Mhm, d' accord alors yow tamit euh, Dieguy Diofal responsable politique nga ca Ndar président de la République euh, jaar fa ci tournée bi nga xam ne jeexal na ko ci week bi euh, tey booy def ab xayma ci tournée président bi lan la ñu ci mën a jàpp. ah li may jàpp rek mooy sant yàlla ndax président mënoon a def tournéem te du jaar ndar ndaxte président mënoon na jaar ci digg bi te du taxaw ndar wala président mënoon na jaar ndar te du taxaw waaye président dafa jaar ndar ba pare toog ak ak ñun waaye li ko waral mooy président jël na xolam jox ñu ko ndax président a épousé Saint-Louis président a épousé une Saint-Louisienne donc ñun Saint-Louisiens yi c'est pas donné à n'importe qui d'être première dame ñun dañ ciy kontaan te di gis président mi ñuy jox wàccuwaay boobu ñun nag tertu nañ ko ñun nag kontaan nañu ñun nag gis nañu ni président Macky Sall am na fu mu ñu teg kon ñun tertu bi dañ ciy def lu dul kontaan rek rawatina li président jaar Saint-Louis alors que mënoon na romb ndax Saint-Louis est en chantier et que chantier yu président dina fa ñëwaat incha allah pour inaugurer ko. nee nañu politique dong moo laal tournée bi. ana lan nga ci mën a wax lu jëm ci wàllu koom-koom gannaaw nee nañu tournée économique la. li ma ci mën a wax mooy président de la république lépp loo xamante ni teg na ko. tànk waxuma président Macky Sall dama ni président de la République at na wëndal képp loxo bu ñu yëkkati tànk bu ñu yëkkati rek xamal ni politique daf koy laal ndax lan mooy politique politique mooy de la cité politique mooy ñi la tànn muy cinquante huit pour cent des sénégalais nan ngay waxee ak ñoom nan ngay améliorer seen boo dawalee dawul dawlu économique boo dawalee dawlu religieux boo dawalee dawlu social tam politique moo koy que lan mooy cappaandawam mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo la tànn nga jiite leen lan mooy lan mooy améliorer seen condition conditions de vie waaye président Macky Sall ñëpp gis nañ lu mu def lancé na travaux de construction de la dorsale électrique ñum Linguère de cent soixante dix président Macky Sall dem département de Podor joxe fa neuf ambulances de programme d'urgence de modernisation des actes et territoires frontaliers dans le cadre du PUMA président Macky Sall inauguré na route carrefour national Medina dem na si jigéenu Podor yi mu recevoir leen mu jox leen lot de matériel agricole pour alléger les travaux des femmes rurales président Macky Sall inauguré na tronçon taree ji Podor 22 kilomètres mu juge foofu mu réhabilité la route nationale Ndioum. kon loolu mooy aspect économique tournée bi. pour désenclaver l'île à Morphine et ça li ko ëmb dafa bëri président laal na enseignement supérieur ndax dem na def ENO président laal na lépp loo xamante ni mooy les religieux dem na ci inauguré des daara modernes président dem na ba dem julli ci jumaa bi nga xamante ni moom moo nekk au niveau de de de la région de Matam mhm. te loolu ku ko tuutil tuutiwul si bëtu ñooñu président dem na inauguré ay ay ay ay ay dañ koy xeeb ñun waa Ndakaaru waaye ñooñu ku xamoon le nombre de kilomètres yi ñuy dox pour mën a àgg foofu doo leen Euh, man de jaraw lakk laa ko ci wax. d'accord ñu taxaw ndar ndax ndar googa nga dëkk am na ay jafe-jafe yu fa tàmbalee feeñ président ba mu fa jaaree gis nañu ku mel ni Mary Teuw di tey candidat ca mairie ba ñëwul tertu si ko mu wone xàjjaloo gu leer nañ euh, ci seen biir euh, coalition bi foofale ana tey luy situation bi ca ndar politiquement. situation bi ci moom moo am ci àdduna wërngal képp ci lépp loo xamante ne moom moo laal politique politique ku ci nekk da am say ambition politique ku ci nekk am ga bëgg-bëgg politique ku ci nekk am nga yéene te du politique kese àdduna bu ci nit duggee am lu la tax a jóg am nga loo ci bëgg waaye lépp loo mën ci bëgg nag da ngay jiital daal di daal parce que nag dafa am li nga xamante ne ragal la ak jomb dafay am loo xam ne danga nga koy jomba def parce que ñun ñoo bokk fu ñu nekk ndax ñi xamante ni sax bokkuñu parti duñu ay ennemi ay adversaire lañ kese waxatuma ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk parti dama leen di wax nañu dal nag li nga ma wax ci politique ndax am na yëngu-yëngu parce que président ñaan Niane professeur Marito Niane ka nga xam ne dama koy jox wàccuwaayam koo xam ne respect laa mën a am ci moom rek ndax man je suis Sanaroise te on est Sanaroise un jour et Sanaroise toujours il a été notre professeur il a été notre recteur il a été notre ministre de tutelle kon moom Marito Niane bu amee bëgg-bëgg am na ci droit man am naa droit bëgg keneen am na droit bëgg waaye dama bëgg rek lépp ñu def ko ci tànn lépp ñu def ko ci waxtaan lépp ñu def ko ci ànd hmm. kon ni mu defee rafetlu woo ko sànq yaa ngi wax waxi njombuteef moo ko moom. man lépp ñaari yëf laa bañ a rafetlu ci comportement am parce que je ne juge pas les gens mais sur les principes. Hmm. le premier principe mooy bu amee remarque boo xam te ne da koy def sur le gouvernement du Sénégal am na ci droit waaye fa mu doon dox ba gisanteeg président ba président nommé ko ministre de xamu ko ba gisanteeg président ba président nommé ko ko kon noonu la war a mën a def ba gis président bu amee lenn loo xamante ne neex ko ci gouvernement bi mu war ko wax ak président Macky parce que loolu mooy yoon. Hmm. sama gis président Macky Sall daf ko bénéficier li xamante ne mooy décret présidentiel tey jii am na Sénégalais yu bëri yoo xamante ne ñu ngi fii am nañ même diplôme ko moom am ñoo xam ne am nañ plus que diplôme ko moom am ñoo xam am nañu moins de diplôme ko ñoom mais le président Macky a usé de son pouvoir discrétionnaire tànn ko moom def ko PCA Petrosen et ce n'est pas une mince affaire donc man pour man président Macky suy dugg Ndar pré professeur Mary bu fekkee ni tertuwul waroon na taxaw ci buntu bango boobu bu ko président loxo ni ko na coordonnateur bi on suppose Marie euh, euh, euh, Mansour Faye kenn associé wuñu ko ci dara waxuñu ko programme bi ko dara ci ci yëf yi demee est ce que loola itam du aw lay ngir bañ bokk ci yëf yi lu ñu la boolewul nag boo ca boolee sa bopp. yow yow yow yaa sàq mi sama lañ ci yow ma ko tuddee aw lay lay moom ku mu neex nga joxe ko nu mu la neexee waaye bu la président dugalee ku la dugalul du la intéressé Mary ñaan Niane que Mansour dugal ko wala bañ ko dugal musu ko intéressé politique nag la ñu nekk am na loo xamante ni yow yaa koy analyser nga xool hmm. ndagam war na wala ndagam rafet na buñ la dugalee baax na bu ñu duggul baax na et puis je vais convoquer l'histoire yàggul woon fii lañ doon tertu président Macky Sall Mansour bu kenn sol t-shirt boo xamante ni sa effigie da si nekk lu dul président Macky Sall waaye Mary Teuw Niane li mu a def la def kon man gëmuma loolu man daal dama ko ñaawlu ñaawlu naa loolu ndax ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye tey jii wàccee nañ ko nekkatul ministre il ne bénéficie d'aucun décret du président de la waaye gis nga jaraw lakk jafe ci local yi ñu dëkkmal. yéen a ngi ko doon yéen a ngi doon artu balay local yi di di jub si sax. ci ñàkk ànd li mu leen mën a joxal comme loraange. absolument ñàkk ànd moom lu mu mën a jural nit dafa baaxul de part et d'autre que ça soit l'opposition que ça soit le pouvoir ànd moo war ndax yàlla ci boppam moo ko ànd leen ma dugal seen sama loxo si seen ànd ànd moo ñu war parce que njabootu président Macky Sall lañu ànd moo ñu war parce que dañoo bëgg président Macky Sall am ndam ànd moo ñu war parce que Mansour Faye man moom lay sanni ñaan moom lay sànni wax ndax Mansour Faye mooy coordonnateur départemental bu APR de Saint-Louis Mansour moom mooy maire de saint moom la Saint-Louis ay tànn Mansour Faye mooy coordonnateur waaye Mansour Faye nag moom moo bokk ak président Macky Sall deret kon Mansour Faye ne même bu dee xaju président Macky Sall sax mu xëcc la. mais est-ce que dem jàpp ba tax mu artu bu fi kenn def liste parallèle euh, ndax itam lii situation mënuñu ko imputer président de la. président Macky Sall yàgg na artu bu hmm. kenn def liste parallèle ñaka ñu gagné leen gis nga booba la leen sanctionné waaye président Macky Mansour Faye man dama koy damay kontaan ci benn yëf. Hmm. ndax moom Mansour Faye moom moo tax président bu investir noonu ko am vingt ans sax moom day battre campagne pour moom mm. dëgg la wala dëgg kooku du dugg ci boobu jugement waaye moom magum jëma bu doy na moom responsable national comme responsable local bu génnee boobu kàddu ci gémminam man dama koy rafet waaw li ci kanam raw li gët ñu wax ci mm. euh, fitna gi ci wàllu politique nervi yi rawatina ñu bari di ko ñaawlu ñenn ñi sax dem ba am ci tiitange ku mel ni Alioune jàpp ne mën naa jur ay nervi yore ay yat di door ñeneen euh, loola euh, naka nga ko jàngatee situation bi jur fitna man premier ñaari yëpp laa wax ci li nga ma posé question mm. bu njëkk bi mooy ñoom Alioune Tine nañu xoolaat seen tëraay nañu xoolaat seen taxawaay nañu xoolaat seen ay kàddu mënuñu wax société civile lañu buy tàkk rek ñu daal yokk moom ñoom ñuy muy gën a tàkk. ah dañoo artu dañoo artu te artu war na de. ma mm. société civile tu dois être à équidistant de lancer un appel nañu xoolaat seen taxawaay bu baax parce que ils doivent être à équidistant de tous les partis politiques. Sonko nag moom dafa romb société civile bi ne loi du tali millions ku ñu màtt ñu màtt la ku ñu dóor nu dóor la. man du ma wax Ousmane Sonko balaa ma fay àgg damay waxu président Macky Sall. Hmm. le gardien de la constitution chef suprême de l'armée père de la nation dama bëggul kooku ñuy wax ay turam di teg ay nervi un nervi mooy ton homme de main un nervi mooy ton homme de main quelqu'un qui est prêt à tuer pour toi te kooku am na ku ko ku ko ku ko mën a defal ndax kooku sénégalais yi ñoo jël seen carte ko kooku sénégalais yi yi ñoo jël seen gendarmerie jox ko kooku sénégalais yi ñoo cadre rapproché jox ko le président Macky Sall a besoin de tout sauf de nervi le président Macky kon lan koy doyee ba ñu koy gis ci seen cortège nervi yooyu cortège bi ñu gis ñu sol marron boo gisee lu ñu bind seen marron du feu c'est les gens marron du feu ñëpp xam nañu ñëpp xam nañu ni police ñi koy assuré du ñoo xamante ne tout le temps dañuy sol ay tenues du ñoo xam ne tout le temps. dañuy mais marron du feu yi moom mooy comme rek. ñu ñu marron du feu am nañu droit ànd ak président waaye man. ñooñu duñu ay nervi mais ma tuuti du ñu mm. ay nervi mm. du ñu ay nervi et je demeure convaincu du ñooñu ñoo àndoon prési ak président di assurer sa sécurité ñooñu am nañ droit ànd ak président def ak moom tourner attention c'est des militants. et c'est des Sénégalais mais le président sa sécurité est assurée par nos forces de défense et de sécurité te sax foofu damay attirer sa attention dañu bàyyi li ñuy def ndax dañu yàq dara suñu police ndax notre police amul moroom kenn du ko naatable tant sur le plan national mais ñi ñu gis ñu yor yar di dóore ñooñu duñu ay policiers ñooñu moom ay nervi lañ xaw ma fu waaye ay nervi yoo xamante ni mm. du ma ci sori parce que manipulation bi ñëpp xam nañ ñu mu toll mm. te kuy jóg ne da ngay am sa gros bras waaye man en tant que jigéen man en tant que femme man en tant que yaay Je condamne la violence jusqu'à avec ma dernière énergie. Je condamne la violence sur toutes ses formes, que ça soit la violence physique, que ça soit la violence morale parce que violence du jur jàmm lu ñu boole moo ëpp lu ñu tàqale dama ni président defu ko waaye képp kuy responsable politique nga ànd sa bras armé na nga wax ak moom parce que violence du cëru politicien du cëru nit sax waxatuma ak politicien. waaye nag léegi bu ñu naree yegg ci ci euh, du talion ak local yi ñu dëkk. loolu laa la bëgg a wax ci fitna ndax politique yi nag jotul yéen ngeen toog waxtaan ci seen biir daal di indi saafara ci mbir mi. gannaaw yéen lañ ci gën a jox jéggi na bi gaa ndax mi ngi ci université ak fépp. Mhm. avant sax loolu. il faut admettre que la violence yëpp lu ko njëkk indi c'est la violence psychologique mooy menace bi ñu di vivre soo génnee soo waxee ñu la soo waxee ñu ne dinañ taal sa oto soo waxee ñu ne dinañ la dóor moo tax ku nekk di jug di wut garde corps kon nañu xoolaat suñuy taxawaay ku ñu jépp du ñu jéppante les politiciens moomuñu dëkk bi les politiciens dañu leen tànn parmi tant d'autres jël ay kàddu teg ko seen loxo loi du talion nag duma ci sore Ousmane Sonko sa violence ñëpp ko yëg Ousmane Sonko sa violence ñëpp ko sentir ay mortal combat lay wax ay résistance lay wax ay xeex lay wax kooku duma ko tontu xam nga kan laa koy bàyyeel les forces de défense et de na loo xam ne bu ko laalee dootul affaire politique c'est des yi nag mi ngi ñëw comme li nga wax damay woo sénégalais yëpp waaye ndey yi laay woo bàyyi yi laay woo yarkat yi laay woo école yi yëngu na université yi yëngu la violence et au summum la tolérance est presque quasi invisible nañu xoolaat sunu doxalin nañu xoolaat sunu ànd ndax li ñu boole moo ëpp lu ñu tàqale lii laa gëm man. jërëjëf Diégui Diop euh, Fall yow yaa yore euh, communication bi ci programme national de lutte contre le paludisme départemental euh, conseillère départemental ca Ndar nga itam juriste en des affaires ñu lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant di la kontaan trop ci opportunité bi nga ma jox ma wax ak sénégalais yi di remercier sama coordonnateur mi nga xamante ni mooy docteur Doudou Sène au niveau du programme di remercier sunu ministre de tutelle muy Abdoulaye Diouf Sarr qui manage avec un coup de maître et maa ngi koy féliciter di encourager képp ku nekk ci personnel de santé bi di wax président Macky Sall kontaan naa ci tournée bi di ko wax jaraw lakk <laughs> bu ñu dee wax moom na tegu ci yoon bi rek <laughs>